sunu iid ji tey yàlla nañ ko yàlla nangul e yàlla mi nga xam ne moo tax ñun ñëpp tey ñu teew fii ci néegam bii nga xam ne amul lu dul moom ñu ngi ñaan yàlla képp ku fi indi njuum te yàlla na yàlla jéggal la ko yàlla na yàlla sàmm ñu yàlla na yàlla aar ñu ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne nag moom mooy buur bi nga xam ne lépp lu am moom yàlla subhaanahu wa moo ko amal mooy buur boo xam ne itam soxlawul ndimbal ci kenn moom kañ mooy dimbali ñëpp waaye képp koo xam ne danga bëgg ndimbal wala lu la jàppale yàlla moo ci gën ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moom rek moo yeeyoo ñu koy jaamu lépp lu nit di jaamu lu dul yàlla yaa ngi nax sa bopp boo jëloon garab bi tey gii def ko yàlla garab gi matu la yàlla boo jëloon asamaan ji def ko yàlla atama asamaan si matula yàlla boo jëloon jant bi di ko jaamu jant bi matul la yàlla te jant bi ci boppam mu ngi lay moylu asamaan ci boppam mu ngi lay nooyu suuf ci boppam mu ngi lay nooyu boo jëlee garab gi mbaa nga jël dex gi mbaa nga jël géej gi di ko jaamu yaa ngiy nax sa bopp yooyu yëpp benn matu ci yàlla yooyu yëpp yàlla moo ko bindal boppam kon nag buur bi ñu war a jaamu ñun ñëpp mooy yàlla subhanahu wa moom mi nga xam ne moo amal asamaan moo amal suuf moo bind ku weex moo bind ku ñuul moo bind ku xonq moo bind ku zone yàlla moom itam moo ñu sant ñu jaamu ko moo ñu sant itam ñu gëm ko ba noppi wóolu ko gëm giñ ko gëm nag dafa am lu muy laaj képp koo dégg mu ne gëm naa yàlla gëm gi war na feeñ ci sa jikko gëm gi nga gëm yàlla war naa feeñ ci sa jikko war naa feeñ ci sa wax war naa feeñ ci sa jëfandiku war naa feeñ ci fa ngay dem ndax bi nga xasee ba gëm yàlla rek moomatuloo sa bopp yàlla sunu boroom da nga nekk ci biir euh, wërngalam te ku nekk ci biir wërngalu yàlla nag da ngay def li nga xam ne moom la yàlla bëgg moo tax ki gëm yàlla sa ngëm sa comportement mooy wane ne gëm nga yàlla wala gëmuloo yàlla bu fekkee ne da nga ne gëm naa te ñu ngi lay fekk ci lu doye di ñu ngi lay fekk ci loo xam ne ah, jaaduwul ñu ngi lay fekk ci lu ñaaw fu fu fu fu fu ñuy toroxale diine yaa nga fa bu boobaa mën nañoo àtt ne yow sa ngëm gi ngay wax du dëgg kon ngëm li koy dëggal mooy ni ngay jëfe ak ni ngay waxe moo xam sa comportement yaag nit ñi wala sa comportement ak baahima yi wala sa comportement ak sa bopp yow sa bopp loolu yëpp nag ngëm bu dëggu moo ko mën a feeñal parce que boo gëmee ngëm gi dafay wàcc ba si sa cër yëpp mooy tax sa loxo doo si jëlloo moom sa làmmañ doo si tudd deru gor sa nopp sax doo ci déglu lu jaadu sa bët doo ci xool lu jaadu sa tànk doo dem fu jaadu parce ngëm gi nga xas ba gëm moo lay conditionné yàlla ko yàlla defal ñu wax na itam yàlla moo ñu boole Seydina Muhammad sallallahu alayhi moom mi nga xam ne daj na lu ne ngir yàlla tey jii ñu jot lii jot lislaam ak ay saxaabaam yàlla na ngërëmu yàlla nekk seen kaw yàlla na yàlla yokk seeni leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbaaxam yëpp alquran daf ko sentee ci benn benn kaddu muy wa innaka la ala xuluqin azim yonent bi moo gën ñëpp jikko xoolal ak li mu daj ak li ko yàlla defal yépp mais yàlla bi mu koy tagg ci jikko la ko yàlla tagg moo tax jullit da ngay fexe ba sa jikko nga dëppale ko ak jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu baax nga nekk ci lu baaxul nga génn ci sa loxo fu baax ngay dem lu baax ngay wax parce que roy boobu nga roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu yàlla boole kon jullit bu ne loolu da nga ciy bàyyi xel ndax yonent bi mooy sunu royukaay sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla teg sunu kanam moom la yàlla wax yu wàcc ci moom wax yu moom la yàlla wàcc ci moom shari